xam le ne élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal bëgguñu ci li nga xam ne mooy ay liste parallèle wax na tamit ñoo xam ne d'accord nañ 2019 ci lu jëm ci wàllum parrainage a ne mooy parrainage bi waaye nag parrainage bi loolee danañu boo xam ne ma ngi ci réew mi te nag bu dee yi nga xam ne moom la ñu dëgmal maanaam ay kenn mënut a organiser ci réew mi nga xam ne moom la Ousmane Sonko di song li nga xam ne mooy magistrature bi Aminata Touré daan nay wax ne discours fitna yi yi nga xam ne Ousmane Sonko ma ngi ko yëkkati loole nag fereññeentewu leen waaye nag loole tamit tiitalul yëngalul ñi nga xam ne ñooy waa gendarmerie moom Aminata Touré ci biir journal bi wax na ne Sénégal de droit lay ba tey moom Aminata Touré ci yéenekaay gi di Rewmi Quotidien nee na nag crise bi nga xam ne moo am ca dindu Casamance loole nag Ousmane Sonko daf cee joxe li nga xam ne mooy position ba yéenekaay gi di Sud ko ci ci wàllum parrainage yéenekaay nee ma Ousmane Chimère Diouf Ousmane Sonko yàq na leen musiba ak mbelengaana daan nay wax ne juge bii nga xam ne mooy Ousmane Chimère Diouf kaddu yi nga xam ne yëkkati ko kaddu la yoo xam ne du kaddu yu sincère te loolu nag firndeel na ne maanaam tëddeewul njaaxaanaay Ousmane Sonko xëy sampab laaj na ko juge Ousmane Chimère Diouf jamono jo nga xam ne mooy PV yu gendarmerie boobee ana fan nga nekkoona nee na ko Ousmane Chimère Diouf jamono mi jox dëgg Khalifa Sall jamono joojee tamit foo nekkoon ak Ousmane Sonko daal di laaj juge bi nga xam ne mooy Ousmane Chimère Diouf ne ko 2014 dafa joxoon dëgg lu toll ci 690 élèves maîtres jamono jooje nag Serigne Mbaye Thiam mi yoroon wàllum njàng meeg mi daf koo lankoon ba tëdd sa naaj wa jamono jooje nag ba Serigne Mbaye Thiam di défier Cour suprême ana fan nga nekkoon a kaay gi du l'Observateur nee na yeewu askan weeg Benno Bokk Yaakaar xeex léegi libre gu la ndax nag article 29 ak article 30 loole moo koy tere mu bokk ci li nga xam ne mooy élection yi ndax loole ma ngi ci code électoral bi yéen a kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la ñi nga xam ne ñooy coalition Yewwi Askan Wi ñoom nag ab cohabitation assemblée la ñu bëgg nag impose Macky Sall rapport de force Macky nag nan la say génne mooy jamono ji fexe ba ay nitam daa di Yaakaar loole moo a kaay gi coowlu benn bokk yaakaar yi nga xam ne ñoo féete ca diwaanu Kaolack dootuñu ko dooleeti ndax am na réunion bu Macky Sall amuloon ak ñooma yàq na leen musiba ak mbelengaana Mariama Sarr dafa mujjee gedd li nga xam ne mooy ndajeema ma El Hadji Diouf ak Mahmoudou Ndiaye Rahma defante nañ fa ba seen xol sedd yéen kaay gi di réew mi quotidien ñu koy fekk fa waa ànd gësama kuréel gi nga xam ne moo ëmb nag syndicat yi nekk ci wàllu wér gi yaram gi ñoom nag jamono ji dañoo am lu leen naqari lool lool moo tax nee nañu nag danañu amal ñaari fan yoo xam ne ñaari fan yi grève lay doon ñaar fukki fan ñett ci weeru mars ak ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars bi nga xam ne moom la ñu dëgmal ni ki démb la ñu doon janoo ak taskatu xabaar yi yéen kaay gi de la témoin nee na ñi nga xam ne ñooy nappkat yi danañu amal nag soo moytuwulee lu toll si ñetti fan yi gréwa ndax nag jën jamono ji kenn gisutu ko ci géej gi beneen bi nag ñoom am nañu ay jafe-jafe ci lu jëm ci wàllum licence de pêche yi yéen kaay gi di libération daal di dellu si waat nag ci alerte rapport bi nga xam ne banque mondiale daanu koy fësal ci lu jëm ci wàllum ndox jafe-jafe nga xam ne Sénégal mën na koo am ci lu jëm ci wàllum ndox ak ñàkk sécurité gi nga xam ne am na ci ma ngi ci journal kaay gi di estat xëy duñu